على ماهن ما الأبص والصبر asalaamaaleykum wa rahmatullah eh, sëriñ Basiiru Mbàkke Abdu Xaadir ñoo ngi lay nuyu bu baax di la siyaare di jégalu kàddu gi ñu yëkkati ci sa kanam nii eh, kii mooy monsieur le mun Mountakha Diawo jiite wàllum tourisme ak artisanat ci Sénégal Euh, moom nag ñëwoon na màggal si waaye ñëw tamit ngir liggéey ndax ku ne xam ne kuñ ne ya jiite tourisme euh, bisu màggal Tuubaa kon da xam ne am nga liggéey bu rëy ndax euh, jàpp naa ne capital bi Sénégal gën a am ci lu koy dugalal ay touriste événement diine yi la te benn jiite wu ci màggalu Tuubaa gi kon dafa ñëw ngir loolu waaye nekk ku sopp Sëriñ Muntaxa tamit ba ñu xamante ba léegi day wax toujours ne ma dama bëgg nga yóbbu ma ci sama turandoo ma xamante ak moom euh, ginnaaw yàlla nag mu ñëw tey màggal si ba biig ba léegi mi ngi ci mi ngi fi démb ci waxtu wi fekk na ko ñëw euh, ñu nañ ñëw siyaare la moo xamante ak yow te euh, ndokkeel la tamit ci bis bi te indil la tamit nuyoo président de la république ak premier ministre Ousmane Sonko. Euh, sëñ Amadou Ba may tamit tànk yi yëkkati kii rek moo ko yëkkati ndax ñoom ñëpp nag yàgg nañoo ñëw màggal sax dal ci kër yi ndax ay taalibe lañ waaye bii yoon nag maanaam réew mi dafa nekk ci seen loxo ñu am responsabilité ci lépp luy doxal màggal gi ba noppi nekk ay taalibe looloo taxit ñu ñëw ngir wan la seen ziyaara ak sàkku ñaan tamit ci yaakaar ji réew mi am ci ñun ba dénkuñu yaakaar jooju yàlla bu ko dara tas képp kuy nas ay pexe ngir yaakaar ji sax fi ba liñ doon jëmmal mu am loolu yàlla na ko yàlla sottal waaye kuy nas safaan ba yàlla bu mu sotti loolu moo tax euh, honorable député Amadou Ba muy ñëw te famem la àndal ay magam ay rakkam ñu jógee ba Amérique ñun ñëpp ñëw ngir rek maanaam jëmmal si sëñ mu ah, ah, Baye Jaawo mi moom it ab muxaddam la man dem naa ba Gàmbi seeti ko ay école arabe rek lim ci am ëpp na junni waaw junni école moom am na ko partout diggante Sénégal ak ba Casamance ba Gàmbi ak Guinée maanaam congrès bi mu doon def keroog li fa nekk ci ay étudiants kenn ay élèves kenn xamul nu mu toll nekk tamit koo xam ne daanaka. Euh, mën na maa wax ne mooy Cheikh Ibra Fallum ba Kër Baye ñas waaw daanaka liggéey yu mag ya fay am yëpp ci ay école ak ay yu bëree bëri yu ñit ak kër xalifa beeg yu bëree bëri rek moom lañ koy sant moom moo koy taxawal ak mbooloom mm, ay at nag mi ngi ñëw di màggal si ak man tey nag moom itam dama day ànd ci délégation bi ñëw ngir ziar la ndokkeel la ci bis bi loolu daal moo waraloon tànk yi ñu ngi lay gërëm tey ñaan yàlla ñu yàgg fekke bis bi te ànd tal bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin alhamdulilahi alladi hadana li haza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi yëkkati kàddu yu nuyoo ak kàddu yu dalal jàmm ak kàddu yu cant ak ngërëm di ko jëmee ci ministère de tourisme ak artisanat di Muntaxa Jaawo ak Amadou Ba mi nga xam ne moom la àndal di député ñu ñëw fi nag ci ndigal Serigne Cheikh Bara Ndiaye mi nga xam ne moom lañuy ganam mu indi leen fi ci man ngir eh, cofeel gim am ci man bëgg képp ku xam ci ku baax rek mu indi ko fi te loolu jëkku tey kon ñu ngi lay dolli am ñoom ministre bu baax di dégg kàddu yu baax a baax rawatina cofeel gi nga xam dox na si digg ak Cheikh Mouhamadou Mountakha te almaru maha man ahabba nit moom comme ni ko ba waxee rek kon ñu leen di delloo ak mboolem délégation bi nga ànd bi bàyyiwuma ci kenn di bis bég baax ndax bis bi tey xat na bisu màggal gi ndax daanaka mën naa ne am na lu ëpp weer tey laa fi jëkki yendu ci kër gi. ndax ci kër Sëriñ Tuubaa leen day na bisu tey bi rek lañ fiy yendu te xam naa sax yàlla dafa def si bi léegi la ma woo ndax eh, délégation fa ñëw far moom gàllankoor mën naa ñëw gàttu leen door del si waat kon ñu leen di nuyu bu baax di bég bu baax ci tànk yi ak jéego yi di leen ñaanal itam eh, cër bi nga xam ne seen kilifa teg teg na ko seen loxo muy président de la république Bachir Diomaye Faye lu ko ñaanal moom itam yàlla dimbale ko defal ko ndam ndax ku yarul la dal di yóbbantam di wooy ci premier ministre Ousmane Sonko moom itam di ko sant bu baax ci taxawaay bi mu fi ñëw barki démb ci yoon wi ñoo xam ni ko waxoon rek ne ko mënoo fay waa Touba waaye moom delloon ne leen jukkal ñoom ñaar ñëpp te murid yoom jëf yu ñooy ndax loo leen defal rek Sëriñ Tuubaa defal leen ko ba ak yéeg rek la ñuy nit ñoom nag seenu yéeg ci ñoom desut dara kon nag loolu ñu ngi koy seeral àdduna sëpp Cheikh Bara yow itam ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci sa taxawaay te xam ne àdduna moom li alxuraan di wax rek wa tilkal ay wa tilkal ayyaamu nudaawiluhaa bayna naas noonu la suñ borom bindi àdduna ndax ndege ni daaw rek ngay door a génn ci kaso yaakaar naa bu ma juumut bi màgg jàllee ba am ay fukki fan rek ci fi ñëw ànd ak waa Daaru Njaay yëpp waaye yàlla defit nag ak cofeel moom kenn mënu koo téye nga am ko ci man loolu ndax waxuma sa sëriñ suñ Moussa ndax suñ Sidi Moussa ñëpp xam nañ sama digga moom ak suñu Moussa ndax suñ Moussa ginnaaw suñ Sidi Moussa tudde na ma doom te dakk bëggu bàyyi ma tax waaye bu dul loolu lépp itam nag moom yàlla nattu ci man ci mu bëgg ma Sëriñ Tuubaa daa waxoon ne daani ila matxi nabi xubbu zaatihi ñaan la dama xiirtal ci liggéey rasulullahi saa dara lu bëgg jëmam moom mii nag doon na ci maamam ak waajuram ndax waajuram tudde na seen baxa doomam moo indi ko ci man jébbal ma naat kon lii boole ko man waaye yàlla dafay nag muy ko bëgg Ousmane ak Bassirou Diomaye ndax dara ñëw daanaka dima ma na gën a daaw <laughs> ngir bëgg ngir yéene gum leen yéene rek ndeysaan loolu nag ñoom kon luñ la jàpp rek def nañ la leen war cofeel gi nga am ci man itam yéemoo ci wax ko waaye danga koy jëfe ndax lépp lu fi xew sa jëf kenn sa jëf kenn du ko fi jiitu waxtu ne itam yaa ngi yaa ngi nemmeeku boo soñoon fu ma nit ñi teg rek mu weesu ko te loolu yàlla koy def zurman tuhibbu wa in shotta bika daaru wa xaala min dunihi chahlun sahlun aw aaru laa yamnaannaka bu'dun min min ziyaaratihi innal muhibba liman yahwa sawaaru loolu tam da def daaw ci décembre la woon yaakaar naa may def góor bi novembre wala décembre décembre la li ca Jolof sori na lool ndax digg na Tuubaa ëpp na téeméeri kilomètre yoo xam lépp suuf la te ba muy ñëw yëgluwul fajar teel farak fekk toog fa bu guddi nekk ci liggéey ba na ngeen daal màgg gi door a fekk nga ma sama tool yi ci wetu xel kon di mure bokkut ak nag yeneen yoon yu bari yi nga xam ne yaa ngi ko fi ñëw kon nag loolu lépp yëg nga xam ne yëg nañ ko bu baax ñu ngi lay ñaanal Sëriñ Tuubaa nga xam ne gisu nañ suñ jëm dara du tax ngeen koy jàpp ndax amul dara lu ñu wutale yéen da ngeen ñu war maan ngir Sëriñ Tuubaa rek di xoo di ñu xoole bëtib Sëriñ Tuubaa waaye xam nga ne duñ sëñ Tuubaa jegewuñ ko sax nag ndax sëñ Tuubaa la ko wootale woon nit ñi moo tax nit ñi def ñu ko def yéen nag da ngeen ne barkeelu ci jëmmi sëñ bi ngir xool gi ñu ko xoole ñaar bu baax la ci desit moo am ñaari kàddu yoo xam ne dama ne woon bu ci cérémonie bi absolu danaa ko wax sax waaye naa ko fa wax fii leeral ko adduna sépp dégg ko benn bi mooy safar yi ñuy def ndax safar yi jàpp naa ne bokk naa ci ñëkku ñi ko tàmbali ma joxe liggéey bi di ko di def ci Sénégal waaye boobu itam dafa am lu ma si jublu woon mooy ñu si bari dañ daan màggal si ba dem te duñu xam li leen tax a jug ci màggal gi ndax sant dafa bokk ci jaamu yàlla yi gën màgg alaysa allahu bi ala bi shakirin wa sayusi llahu shakirin waaye nag wa qalilu min ibadiya shakur leera ci sëñ Tuubaa ndax sëñ Tuubaa sëñ Buxaari daa wax ne sëñ Tuubaa kenn bañu ko ndax nit du bañ njariñam dañ ko umpale rek ndax am na ñoo xam ne nañu jàngalee siñ bi bokk sax na sëñ bi mel moo tax ñu def ko ci région yëpp université Dakar lañ ko jëkk a def 2010 booba suñ Mansour si El Hadj Abdou Aziz maa nga foon bisu feet gii ñuy wax sax foofa la tàmbalee ñu jóge def ko def nañ ko Ndar def ko Louga yóbbu ko bitim Italie France Amérique waaye booba it lañ ci jubloon mooy bëgg nit ñi xam ko rawatina ñi ci war a gindi ko te gindi ko ci. biñ doole biñ demee doo demee ba xam ne nag la ci ëpp ñuy màggal si ñoo koy def ñoo tax bëggatuñ leen tegu coono waaye yàlla dafa def mbirum suñu tubaab lu mu de rek day barkeel moo tax terewuñ safar yi nag ndax loolu màggal lu màgg la ndax day mel ne noddu ci waxtu julli waaye nag am nañu ci bëgg a loo xam ne bokku ci mooy ñi wër di dogale nit ñi ndax wa maa tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu indallah ku waxee rastawa ñëpp wax nañ ko waaye nag waaye sarax itam daa am ay sart du caagee ne ku jug rek war laaju sarax innama sadaqatu lil fuqaraai wal masakini wal amilina alayha wal muallafati qulubuhum wa fi riqabi wal xaarimina wabni sabili faridatan min allahi wallahi wallahu alimun hakimun kon yalwaan moom yàgg na ci lislaam yoonu muur itam xam ngeen ne naka jëkk loolu yàgg na fi waaye nag waxuñ ngay forcer nit ñi ci laaj loolu bokkul ak yalwaan yalwaan nit da koy def ci coobaram ba ca desit am na pomi pomi ñu ci bëgg a bari te Sëñ Tuubaa bëggatum po Sëñ Tuubaa ak jaamu yàlla la woote seytaan nag mooy mooy def fu lu baax jóge lu mën a teg ci wet ga teg ko ca waaye Sëñ Tuubaa lam lam woote mooy sant ko ci li mu wax nawaytu sukruhu bi fardin wa sunan indahuma fi daari si benoon wax na fu bëree bëri ba baxla jamili sabri fi ixtiraab yi nawaytu shukruhu la daa daari sa wa bi jismin wa xilaam kon sarax baax na waaye sarax li ci li ci ëpp solo ki koy def na koy def ci cobareem waaye solo nit ki ba nit ki nit ki du xamat li def lool baaxul kon nañ wàññi pomi ci biir safar yi te réew nag ñu du ko def ndax loolu ixlaaw kalimatullahi rek la waaye nag nañ ci xam fañ ci war a yem te ne lii mooy bis bu ñaareel ba itam ñu bari dañ may woo fan yi jaaxle lool ci naqaru taalibe yi am ci wax ne dañoo bind ab leetar ñu lu jëm ci ay gan ñoo jóge bitim réew di ñëw dëgg la nag daa nañ ko def waaye leetar bu man mosuma ko bind mosuma bindu leetar màggal gi itam leetar bi ci jëm ci nguur gi benn leetar la mooy bi ñu yónnee ministère affaires étrangères pour ambassadeurs yi Cheikh mu taxaa si ko maa ko joxe man mii ci sama loxo la jar amul beneen lettre nag boo xam ne bind nañ ko xaw nag ña ko bind fu mu jugee nu wax ja demee loolu dese na waaye nañ xam ne sàkkuwuñ ko buñ ko sàkkuwoon rek xam naa ñu def ko ndax président bi ci boppam moo wax bi mu fi ñëwee ne joxe naa ndigal lépp lu jugee ci yéen nañ ko bàyyi mu jàll waaye lettre bi nag daa bëgg ñëpp xam ne jugoo ci suñ jugoo ci man te man maa jiite liggéey bi. kon loolu moom na leer àdduna sépp ñoo xam ne binduñu leetar te xam naa ne buñ ko bindoon danañ ko def waaye yërëm leen cee tax waaye nag comme gis naa ne mi bëgg indi ñu bari indi ci biir waaye leen amut te naa buñ ko bindoon itam ndax moom ba mu fi ñëwee ba waxtaan ak sëriñ bi sëriñ bi nee na ko leetar bu jigoo ci Basiiru xam ne jigoo ci man loolu moom xam na ko kon bu ma bindoon leetar day ñu def waaye leetar kon loolu moom loolu moom na leer àdduna sépp ñu xam ko ndax dama noonu bu suwaa dinaa ko leer sax waaye benn lettre budul bi jëm ci ministre affaires étrangères mu yëgal ambassadeur ñëw gi nday jëw noonu la demee amul amul benn lettre laa moom ci loolu ci leer asalaamaaleykum wa rahmatulah Sal tey